alhamdulillahi alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yaalam wasalaatu wasalaamu ala man bi risalatihi istanarati alcuqul wa ala alihi wa saxbihi wa man tabia sunnatahum ila yawmi ddin ginnaaw bi nu sante yàlla julli si yonent bi salallahu alayhi wa sallam seen mbokk waa Shabab Tech li taawun wal ibdaa wa tanmiya ñu leen ñu xamee ko ci français Jeune Tech pour la solidarité l'innovation et le développement ñu nekk seen mbokki taalibe yoo xamante ni bii ñoo ngi fii ci Kër di yëngutuwaale ci wàllu technologie nga xam ne dañuy faral di taxawal ay dawra ci lu jëm si wàllu technologie di si jàngale ñu nekkoon ci benn dawra ICDL ci dawra boobu nag ñu tolloon ci ci barnaamij bi nga xam ni mooy Microsoft access Microsoft access nag barnaamij ba barnaamij la boo xam ne bii dañuy dimbali suñu gën a mën a tanzim suñu maalumaat yi nga xam ni dañ koy jëfandikoo moom ci lu bari ak euh, man koo ba man koo gën a jëfandikoo léegi xam naa buñ koy bëgg a taarif rek ci arab dañuy wax ni barnaami idaat qawaidil bayaanaat walla ci français système informatique de gestion de base de données relationnelle loolu li muy wund rek mooy euh, li nga xam ni moom mooy access day jëfandikoo lu ñuy tuddee ak ay bayaanaat waaye mu koy jëfandikoo moom ci chaque maalumaat léegi bu bëgg bayaanaat moom mooy lan bayaanaat moom mooy lépp loo xam te ne bii da koy jëfandikoo pour bind dara wala enregistrer dara ci ordinateur moo xam ab xaraf la wala ab raqam la wala ab ramz la kon loolu moom mooy bayaanaat bi waaye ku ne xam na ni loolu boo ko jëlee sànni sànni nu la neexee doo si mën a jariñoo léegi pour nga jariñoo ko loolu faaw mu intisaame nga dajale ko mu nekk lu ñu tuddee maalumaat wala information léegi information boobu wala maaluma boobu ci moom ngay mën a jëfandikoo pour di ko dugal ci biir access di ko fi organiser maam di ko tanzim ba mën ko idaara bu ko defee nga mën koo jëfandikoo bu baax ci lu ko lu ci mel ni par exemple boo ñëwee ci école bi nga xam ni fa ngay jànge di nga fay fekk lu nuy tuddee ay sijilaat yoo xam te bii si leen ñuy bind lépp lu aju si ñi fiy jàngale moo xam seen tur la seen sant seen adresse lu ñuy fayiku ban at lan fi commencé jàngaleek ak yooyu yëpp wala fépp foom tam si leen ñuy bind comme ñi teew ak ku tardé mel noonu fi ñu koy bind ak lu jëm ci wàllu élèves yeeg lépp lu jëm si aju si ñoom si seeni information donc foofu lañ koy bind loolu nekk tamit moom it base de données la ndax foofa lañ koy jëfandikoo waaye li muy wuteeg access rek mooy access base de données la boo xam te ne bii informatique la maanaam ci wàllu ordinateur rek lay doxee waaw léegi nag comme ni ñu ko xamee access loolu lay liggéey waaye ndax moom rek moom moo koy liggéey euh, déedéet ndax am na yeneen barnaamij yoo xamante ni bii ci yooyu la ñuy yëngatu di ko def comme moom. lu ci mel ni Oracle ak SQL ak MySQL yooyu nag bi ci gën a woyof moom mooy Access gën ci yomb jëfandikoo waaye moo ci gën a néew doole tamit waaye bi ci gëpp doole tamit moom mooy Oracle moom waaye ñun ñu ngi jëfandikoo barnaam bi nga xam ni moom mooy Access léegi nag lan moo tax ñuy jëfandikoo barnaamij informatique pour mën a idaara suñuy bayaanaat badalan ñuy jëfandikoo barnaamij boo xamante ni bi ñu yem ci maanaam badalan ñu yem ci li ñu xamoon mooy jël ab kaye di ci bind li nga xam ni moom lan soxla bokk na ci njariñ yooyu benn mooy du jël espace nekkul loo xamante ni bi day jël espace du la xatal ci sa nit du defal dal beneen bi mooy sa fa nga enregistré say maalumaat wala say information man nga caa dolli heure bu la neexee wala nga changé ci dara heure bu la neexee wala nga effacé ci dara te du la yàqal dara waaye mën nga aussi tamit comme ni ko baat bi tekkee access mu ngi tekki wusul aw accéder ci mbir maanaam yegg ci mbir ci lu yomb léegi kon si ngay xam da nga xame ni kon sa information yi nga def ci sa base de données mën nga cee accéder heure bu la neexee te ci lu yomb du jar na ngay te comme bu doon ab kaye wala ngay ubbi di ubbi di ubbi ba yegg ci nga xam ne mën na laa réeral waaye da bind li nga soxla rek mu génne la ko te bokk na si njariñ li tamit mën nga caa jël pro li nga bindoon génne ko def ko ab genre taqrir wala nu koy ñu koy wax ci genre rapport def ko benn rapport daal di koy imprimer génne ko def ko ci këyit. te du la sonal bokk na ci njaañ la tamit moom moo gën a moins cher que ngay jëfandikoo ay kayit ndax euh, non seulement dina la kiyal espace waaye dina la jariñ ci nekk ay kayit waaye mën naa am tamit benn euh, sikk bu ci am boo xam te ne bii xëy na mën naa bañ am si kayit wala sax mën na jaa am waaye du yomb mooy nga jékki-jékki ñàkk say base de ndax ku ne xam na ne informatique dina am ay ay erreur yoo xam ne da faral di am. nga jékki-jékki ñàkk say base sa sa lépp loo xam ne nekkoon na ci sa ordinateur day faral di am léegi nag problème bu boobaa mooy maa nga ko wala boo ko mënta récupéré nga daal di koy ñàkk bu doon ci këyit nag mën ngaa am sens du gaaw a yàqu doonte moom mën naa tàkk wala lakk wala dara xew sax léegi loolu moom mooy li nga xam ni mooy euh, li ñu bëggoon wax barnaamij boobu nag Microsoft mu ko créé woon ci 1992 mais première version bi nga xam ni. def nañ ko arab maanaam taarib ko ñu ngi ko ko def en 1994 léegi nag euh, barnaamiju access buñ ko bëggee ubbi nu ñuy def am na ñaari yoon yoo xamante ni mën nañ faa jaare pour ubbi barnaamij bi premièrement mooy ñu ñëw fii ci bouton bi ñu tuddee démarrer daal di koy bës boo ñëwee di nga gis fii lu ñu tuddee tous programme boo ñëwee nga bës tous les programmes dem wër bu fii wàcc ba yegg ci euh, Microsoft Office boo ñëwee Microsoft Office xam naa ñun Microsoft Office 2010 bi la ñuy utiliser moo tax gis nga fii ci suuf 2013 waaye ñun 2010 la ñuy fa la ñuy jëfandikoo ci dawra bi léegi da ngay ñëw fii nga tànn Microsoft Access nga bës boo ko bësee mu ubbil la ko comme nii nga xaar tuuti mu def euh, chargé ba pare daal la koy ubbil léegi gis nga. mu la ko noonu waaye am nga beneen yoon beneen yoon bi mooy nga ñëw ubbi lu ñuy tuddee euh, fenêtre fenêtre wala naafila bi ñu tuddee exécuter loolu pour nga ubbi ko da ngay bës ci touche bi nga xam ni moo tudd touche Windows boole ko ak R léegi boo ñëwee foofu nga def fa M S access mu ngi juum fii. MOS access daal def entrée moom it mu bind la programme bi léegi kon xam na ni noonu la ñuy ubbee programme bi ñaari façon yooyu mën ngaa jaar access de démarrer tous les programmes Microsoft Office daal di koy ubbi dugg access wala nga ñëw boo bësee fii tamit di nga mën a gis ni fii bu fekkee mës nga koo ubbi di nga ko fekk fii mu taxaw nga mën koo bës mu ubbil la ko léegi. ñun gis nga boo ko ubbee fii muy taxaw déjà gis nga benn différence bu am digganteem ak yeneen programme Microsoft Office yi comme Word wala Excel wala PowerPoint ak ñoom Publisher yu mel noonu gis nga ni yooyu da ngay dugg si espace de travail maanaam waajihatul amal bi mubasharatan mais fii nii da nga gis ni fii lay taxaw lan moo tax ngay taxaw fii man nga see seetloo leen mooy premièrement accès pour nga liggéey si faaw nga créer. base de données bi nga xam ni ci ngay liggéeye maanaam fi ngay liggéeyee faaw nga li faaw nga euh, créer ko pare doog cee mën a liggéey mais bu dee wóor wula yooyu da ngay dugg bind bind bind ba doyal mu doon laa laaj ndax da ngay enregistré la doo enregistré waaye fii faaw nga enregistré ko doog cee mën a liggéey léegi kon dina soxla ñu xam nan la créer base de données boo xoolee ci fii gis nga fii lu tudd façon base de données yi am boo ñëwee fii ni ci waajixa bi muy ñëw léegi di nga gis mu defal la base de données vide maanaam xaadatu bayaanaat boo xam te ne bii xaaliya lay doon dara du ci am waaye boobu tamit ci ordinateur bi lay nekk maanaam moom moo la créé à zéro base de données boo xam te ne bii tamit vide lay doon waaye pour utilisation internet lay doon pour nga dugal ko ci web bi wala nga dem ci yoo xam te bii yow yaa ko créé sa bopp mu nekk ñoom tamit yaa ngi ko doon faral di jëfandikoo wala yoo xamante ni bii ay exemple la yoo xamante ni bii dañ koy defar pour boo bëggee fa par exemple su ma bëggoon defar base de données boo xam pour ay tour laa ci bëgg a dajale ay liste ay tour ay information yu aju si ay tour kese wala boo xamante ni bii day aju si par exemple ay euh, bureau yu mel noonu gis nga exemple sax a ngi nii mais yii nii ci internet bi lay nekk faw nga dugg ci internet bi pour télécharger ko kon di nga gis ni su la neexee nga créer bu vide su la neexee nga ñëw si xool benn boo moo ci dëppoog li nga bëgg a defar nga créer ko léegi léegi pour nga créer base de données pour fii ñu nekk nii boo bëggee créer base de données li ngay def pour nga créer base de données da ngay ñëw fii nii fii si sa droite nii nga gis ni fii base de données bi fii loo fi tànn mooy turu base de bi gis nga fi mu ne nii ñu ñu ngi ci base de base 4 léegi loolu mooy tour tur iftiradiyan maanaam tour par défaut bi mu koy jox mooy base de données 1 kon di nga gis ne ñun jot nañoo créer trois bases de données moo tax mu 1 te bu njëkk bi tudd 1 2 3 comme aussi 4 léegi su la neexee nga changer tour bi foofu waaye li gën mu nga changer tour bi te tuddee ko tur boo xam te bi day am rapport ak li nga xam ne moom nga bëgg a liggéey doo ko tuddee n'importe quel tur mais bi dafa war a nekk loo xam te bi bi bi mu jarra di nga xool ko rek da ngay xam base de données bi ci lan la jom lan laa ci doon liggéey léegi nga daal di jël foofu tour bi nga koy tuddee après nga ñëw fii nii ci flèche bii nii boo gisee fii daf lay bindal ni la base de données fu mu taxaw mu ngi nekk ci document léegi pour léegi mën naa changer fan laa ko bëgg a dugal ci sama ordinateur mu ñëw bés fii mën naa ñëw par exemple ma ñëw ubbi document bi ma soxla gis nga fi base de données yu njëkk fi taxaw ak noonu léegi man mën naa ñëw fii nii def euh, MBA ñëw access Genetech ci wolof mën naa ñëw créer ko par exemple ma tuddee ko muqaddima aw introduction intro daal def int int mën naa ñoo def intro access intro access 2010 daal def ok mais fii man naa fi choisir aussi ban façon access laay utiliser su ma choisir access 2007 bi man access 2010 laay jëfandikoo waaye ku yor access 2007 tamit di nga ko mën a jëfandikoo sans problème su ma choisiree deux mille bi wala 2000 2003 day day compatible wala day nekk loo xam day am tawaafoq ak yooyu nga xam ni moom moo ko jiitu woon mais boo choisir pour mu nekk 2010 kese boo ko ubbee ci yeneen version antérieures yi maanaam yi ko jiitu woon mën nga ci am problème léegi su comme li gën te comme comme access 2007 daanaka fi mu ne nii dañ koy jëfandikoo lu bari mën nga koo créer boole ko ni ko na koo compatible ak access 2007 nga daal def ok léegi. fi mu ne nii utal nga sa base de données tour wutal nga ko fonkateg waaye ba léegi créé goo ko te di nga seetlu fuy tamit lu ñuy tuddee li ñu def nii ACDB mu tudd access database muy access mu mu lay wan loolu mooy extension bi nga xam ni ordinateur bi moom lay taamulal pour xam moom lay jëfan jëflanteel pour xam lii ban façon ban façon fichier lay jëf jëfante maanaam ban façon milaf la lii lay utiliser mooy extension bi loolu mooy extension access comme ni ngay gisee excel ak ak ak extension mu nekk xls euh, yooyu ak wala plus x wala word mu nekk euh, point doc wala yu mel noonu moom lii moom mooy extension léegi nga ñëw choisir fi nag pour créer base de bi nga daal ñëw fi daal def créer léegi nga daal di am nga foofu création li ñu tudd base de données donc bu ñu duggee ci biir mën na ni kon loolu actuellement moom mooy base de données bi léegi ñun base de données bi li ci ëpp solo lu ñu ci mën a wax boo xoolee gis nga fi ay onglet ñu def benn genre présentation bu gaaw gis nga fii ci kaw lii la ñuy tuddee ruban bi léegi ruban bi fi la menu yi nekk nga commencé menu mu dellowaat la fi nga xam ni mooy début bi. boo bëggee delluwaat si début bi carrément première euh, interface bi nga ñëwoon wala waajeex bi nga ñëw taxaw fii nga gis ni nga xam ni moom mooy li fi nekk léegi su la neexee nga ñëw accueil di nga gis ni am na ay affichage ak yëpp yoo xam ne bi moom moo ci aju lépp lu jëm si wàllu euh, mise en forme ay mbind yu mel noonu nga ñëw fi créer lu jëm ci table yooyu yëpp moo ci biir lu jëm ci données externe nag maanaam bu soobee yàlla yii yëpp xam naa dinañ ko dinañ ci gis lépp loo xam te bii dawra bi laaj na ko incha allah dinañ ci jëflanteel ak moom léegi access suñ dawra bii lan lañ si war a jëflanteel ak moom dawra bi bu neexee yàlla dinañ si jëflanteel ak juróomi mbir yoo xam te ne mu ngi aju si access première bi mooy table mu nekk lu am solo trop ndax access lépp looy liggéey ci table lay aju mënul liggéey dara dara ci access loo xam te ne bii teguwul ci ci table moo tax bala ngay defar table am na lu ko war a jiitu war nga xam par exemple ki ngay liggéeyal mu bëgg nga defaral ko benn xaadatu bayaanaat nga comprendre moom lan la bëgg ba pare pour nga mën a ñëw defar table tam day méngook liggéeyam ndax sa table bu jaarul yoon li ci des lépp dara du ci jaar du ci jaar yoon kon li ngay njëkk a gis mooy table moo tax boo ubbee access li may njëkk a créer mooy table dinañ jëflanteek lu tudd tamit requête requête taabul ñu ngi koy tuddee jadawil ñu dinañ jëflante wu tamit requête requête ñu koy tuddee istilaamaat maanaam sa table boo bëggee am ci benn information bëgg a laaj bi ñu ko dama bëgg nga indil ma information tel wala nangam nangam lii non dama bëgg nga indil ma wan ma nangam ci requête ngay jaare pour mu mën a wane génne dara lu nekk ci table bi dinañ jëfandikoo tamit lu tudd namazic wala formulaire formulaire dañ koy defar mu nekk loo xamante ni bi genre interface lay doon boo xamante ni bi euh, day nekk interface interactive ak ki nga xam ne mooy jëfandikoo ordinateur bi par exemple yow boo liggéeyee ba pare ki nga xam ne moom nga doon liggéeyal base de données moom dootul soxla dara ci base de données interface boobu rek si liggéeyee par exemple su bëggee enregistré dara su bëggee def leneen lu manti def si la koy jaarale su bëggee enregistré dara bu koy supprimer mën na ko jaarale foofu bi mooy lu nuy tuddee état wala wala taqaarir wala rapport moom nga mooy li li nga xam ne jotoon nga koo def ci sa base de données yooyu yëpp mën nga koo def ci benn genre rapport daal di koy imprimer dina gis tamit lu ñu tuddee macro macro mooy genre programme booy def la mu nekk genre ixtisaar wala raccourci boo xam pour nga ubbi sa formulaire wala leneen moom ngay bës ma ubbi la ko di nga gis tamit euh, bu soobee yàlla li ñuy wax relation entre table ndax table des fois di nga soxla projet boo xam tam du nekk ci benn table mais ay table yu bëri lay soxla te des fois nag table yooyu loolu moom mooy bokk na si njëriñu access ndax daf lay permettre nga organiser ko de table bi par exemple par exemple su ma bëggoon a wax Shabab Tech information ñi nga xam ne ñoo bokk Shabab teg information formation yi Shabab Tech di joxe information table yi sa euh, poste yi am biir Shabab kan mooy joxe euh, formation tel kan mooy joxe formation tel kan mooy occupé poste tel bu ci nekk dama ko defal taawul boppam mais après ma mettre leen en relation en relation léegi ginnaaw boobu si laay mën a liggéey liggéey bu set léegi su ma juumee ci taabul yooyu tege ko nu ma ko war a tege boobaa su ma demee bay ba ba li jeexal liggéey bi war a taxamul ak commencé nag di jëfandikoo sama liggéey foofu damay am problème moo tax tamit dinañ gis nu ñuy defee relation entre table ci gàttal loolu moom mooy li nga xam ni dinañ jëfandikoo ak moom incha allah ci barnaamij bi nga xam ni mooy Microsoft Access xam naa ñuy ñaan yàlla rek mu defal ñu taw tawféex ba ñu matale ko ni mu gën a gëne ni mu gën a seete ndax euh, ku ne xam na ni comme ni ko waxee ñun taawno ibdaa wa tanmiya dañoo bëgg ci lépp lu ñuy def mu ànd ak euh, set ñu sellal ko te joxe ko ci anam gi ko gën a mane lépp loo xamante ni bii nag eh, mën nañ ko incha allah nañ ko ci def ba mu gën a mat wa axlu daawaana alhamdulillahi rabbil alamin